ci mbaaxam lañu maye ñu fekk bis bi nga xam ne bis la ci bis yi boroom bi subhanahu wa dilaaj nit ki ci dundam ndax lan la ko paase ndax ci yiw wala ci safaan waaye itam di ko sant bu baax a baax moom borom bi ci xewalam yu yaa yi nga xam ne mu ne si ko takk موخل بابم نے و ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها من خیر والی اللہی یا تو نیا تو آئی بوخنے بولین کو بگونا تکیت دولین کو من دی جلی چی یونان تم بینگا خنے علیہ الصلاة والسلام یا اللہ دف کو دف یر من ریکس ہے گر خیر وی من انما انا رحمت مہدہ من من خیر وال من من یر من ریکس اللہ و یا اللہ جو منے فی قدو di ko ñaanal waa meew xéewal bisimilah gan di dotteeku ci kawam ak waa këram ak saxaabaam yi nga xam ne ñoo ko jàppale ci mission bi ko yàlla joxoon ak képp koo xam ne fas naa topp ci njubam gi ba keroog bis fiñ ba di nuyu bu baax mbokk yëpp di wax ne sëñ Mbàkke ñu ngi lay nuyu bu baax waaye di nuyu ki nga xam ne mooy sëriñ sëy di nuyu mboole mbokk yi na ci groupe bi nga xam ne mooy alquran ak sunna di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla yàlla may ñu sabaat may ñu ñu ngoy ci dëgg kon ñu ñëw rek insha allahu taala comme ni ko suñ Mbàkke waxee muy thème boo xam ne bu ñëw ci jamonoom comme niñ koy faral a waxee ni ko olof di waxee ne lu def waxu lu ay di njàmbat li nga xam ne mooy 31 décembre te weer wi ñu nekk nii jullit bi maanaam jëmmi weeru décembre rek jullit yi di ko feetu di ko ànd ak ñi nga xam ne nekkuñu ay jullit lan la borom bi subhanahu wa taala wax ci loolu nan la sare ak gisee feet yi nga xam ne bokkut ak sunuy feet ñu jullit ñi ndax war nañ ko feetu ànd ak ñi dul jullit wala deet ak lan moo war a nekk taxawaay julit ci weer wi nga xam ne weer wu mel nii la incha allah kon loolu mooy thème bi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu jubal sunu lam ba li ñuy wax mu dëppoog waxam ji ak waxi yonantam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala fahmi salafi salih bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حكيم Euh, mbokk yi ñu ngi leen di wax beneen yoon di dëkk ci thème bi nga xam ne kon moom lañu ñu euh, oustaz tànnal ñu war ci ànd ak mbokk yi nafarante ci ak ñoom ci li nga xam ne noonu la ko lislaam jàngate insha allahu taala weer wi nga xam ne moom lañ nekk ni muy weeru décembre موير وخمنا وير لكي وير إنغا خاني برام بي سبحانه وتعالى وخنا كي القرآن إن عدة السهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مني لمو وير إيدي نينا ميني طلوك فك وير أنيار كون ديسمبر بن وير لكي وير يويرك لكنك بدي جلتني دفا أم waxtu woo xam ne ci la ñu natt seen at nga xam ne bu dellu see rek ñu ne at ma jeex na dugg nañ ci at mu bees te mooy muharram te mooy tamxarit nga xam ne mooy dafa dépendre ci gàddaay yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa waaye ñu tànk ko cam ci weer yi nga xam ne mooy suhur alqamariya bu dee ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ak ñu mel ni ñoom nag dañu dépendre ci weer yi nga xam ne mooy weeru jant bi لأن لوجنا كنك برام بسبحانه وتعالى مموكو دوغل واي نتاليكو أتمي نك فوكي وير أنيار كم نسمن بي نكتم لنغا خاني موي جروم نياري بيس متبرم بي وقتي آي بوب نيوتو دليغي جي سورة التوبة إن عدة الشهور عند لا حسنا عصارا صهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ñeenti maanaam fukki weer yooyu ak ñaar nag yépp a benn boo xam ne rek wuute na ak moroom ma alquran moo ñëw saxal ne weer wi day wuute na ak moroom ma wala wuute na ak yeneen weer ya wala sunna ñëw saxal ko wane ne weer wi day dañ ko génne ci fukki weer ak ñaar yooyu wuute na ak yeneen weer ya am na ngëneel loo xam ne yeneen weer ya amu ko كم نمو تدعي كورن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان موانا ويركور موام أمن نغن اللوحن ينن ويريا أموكو نكنونو تبير آي بين دون جانغلegi بوجال لج بشكنام دنجيس ميوحن منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم mu ni fukki weer yooyu ak ñaar yi nga xam ne moo composé at mi am na ñeenti weer yoo xam ne moom lañ tudde al ashurul xurum mu yeer weer yi nga xam ne yàlla suñ borom subhanahu wa taala daf ko warmaal ba e, daganul sax ñu ci xeex muy weer yi nga xam ne mooy muharram muy weeru tamxarit ak weeru zulhijja ak zulqaada li nga xam ne mooy weeru rajab borom bi subhanahu wa kon moom ci atteem la mbir di nekke mbir maanaam ci la ñu yoonale ni lii de am na nga ne loo xam ne moroom ma amu ko bu dul lool nag weer yëpp a yem kon weeru décembre bu fekkee dañ ko tànn di ko màggal war nañu indi tegtal boo xam ne dañuy jàpp ne tegtal bii de ñu ngi ko jële ci alquraanu yàlla ji wala di ko jëlee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar yi nga xam ne ñooy yoonal jullit bi war a tënku ci ñaar yooyu mën a def wala mu tënku ci door a bàyyi amma nag loo xam ne dañ ko fekk rek ay nit di ko def muy ñoo xam ne borom bi subhanahu wa taala aaye nañu ñu ñu di leen toppandoo wala ñu leen jàppe ay xarit wala ñuy méngoo seeni mbir buñ leen toppandoo ci loola ba nga xam ne dañuy màggal décembre wala bal mën nay am sax ñu màggale ko noo xam ne ñoom sax daanaka lottu nañ ci màggale ko ni ndax jullit yaa koy màggal ci façon màggalin woo xam ne daanaka mën nañ wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne ñoom ñoo ko moom sax ñom duñ ko ni magalé wala bok julit ñi dañ ci yem ak ñom kep légui motax borom bi subhanahu wa taala wax ne motax borom bi subhanahu wa taala wax ne لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير borom bi subhanahu wa taala dafa aaye julit ñi aaye jaam ñi nga xam ne dañoo gëm aaye leen ñuy mengook ñi nga xam ne ñooy ñi wedd yàlla li ñu wax alwala walbara bunt boobu buñ ci duggee dañuy gis ne amul benn jullit boo xam ne am na droit muy mengook ab yéefar wala mengook ki nga xam ne noonu bi yàlla la diko roy ci ay jëfam waye diko roy ci waxinam diko roy ci comportement mu jàppe ko ki nga xamné mom moy ab soppeem mu bayé ñi nga xamné ñoo ñi gëm yàlla laa yattaxis almuminuuna alkafirina awliyaa min dunil mu'minin mu ne ki nga xamné def na lol de fa laysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqa nee ki def lol nga xamné da fay jël mbiram yépp jébal ko ñi nga xamné ñoy non yàlla yi nga xamné nak ko ñu ci diine l'islam mu méngoog seeni mbir maanaam mu nekk ñoo xam ne daf leen di nuru nurulu ci wax di leen di ko nuru nuru ci jëf waaye di leen nuru nuru ci comportement di leen nuru nuru ci lépp borom bi nee ni ki def loola de nekkul fa yàlla lenn fa laysa min allahi fi shay illa an tattaqu minhum tuqaa allahuma loolu rek nga nekk ci seen réew te nekk gi nga nekk seen réew xëy na am na ci yoo xam ne yaa ngi koy moytu ci ñoom ba tax nga ànd ak ñoom ci loo xam ne ci kaw rek la waaye àggul sa xol kon bu boobaa nee na yàlla du la ci topp allahuma nag bu fekkee da nga ànd ak ñoom ci loo xam ne lor warulu ko ba pare nag nga ànd ak ñoom ci jëf joo xam ne sa la ànd ak say cër bu boobaa nag borom bi subhanahu wa taala daf la ciy topp moo tax mu aaye li nga xam ne mooy nuru nuru ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi moo tax yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne yaa ngi nuru nuru aw nit rek yaa ngi bokk ci ñoom bala ñoo ñëw ci comportement yi nga xam ne gis nañ sunu réew réew jullit yi rawatina sunu réew di ko comporte woo ci weer yi nga xam ne mooy weeru décembre dañuy njëkk a indi lenn ci ayat yi wala ahadis yi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam àddu na ci wala alquran addu ci mu tax borom bi liñ doon wax léegi ne bu fekke fekkee a ko waral day maanaam nit ki mi ngi masla ak yéefar yi waaye ci masla boo xam ne ca kaw rek la xolam àndu ci te wax gi muy wax waxloo maanaam masla gi muy masla noonu ba ànd ak ñoom ci loo xam ne xëy na ci dëgg dëgg dëgg lislaam àndu ci waaye def ko def ci kaw rek ngir lor lu tolloo ko loram ja ngir fegoo ko seen ay nee bu boobaa borom bi subhanahu wa taala mën na ko jéggal ndax borom bi dene من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم في قصة عمار ابن ياسر بن خاني يفر مكة نينكو سونال ديكو سونال غير موخت محمد ولا تي الإسلام لو خمني لو يالو الله من دمي بم دمي بلوتو لو خاني مو بغوكو نوخ لام من ويكو وهاي قلبي مو وخوكو biñ ñu bàyyi ko mu daw dem ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di wane njàqareem di wane ne moom alkuna ndax wax na loo xam ne moom waru koon wax ci lislaam ci la aay bi wàcce nag ne képp koo xam ne weddi na yàlla de ginnaaw bi nga xam ne gëm na yàlla waaye day euh, weddi googu mu weddi yàlla bu fekkee dañ koo forcé nga xam ne xolam àndu ci dañ koo forcé rek mu wax ko ci kaw làmmiñam wax ko ci kaw nii rek waaye xol ba àndu ca kon ku boobaa de kooku yàlla du ko topp te ànd ak xel xol bu dal ànd ak loo xam ne daal weddi na ko ci cër yi ci làmmiñ wi waaye xol ba ànd na ca amul benn lor boo xam ne moo ko posé ba mu def loola kooka day yàlla mere na ko merum yàlla dana wàcc fii ci moom ci àdduna waaye wàcc fële moom ci alaxira yàlla war koo mbugal foofu tam mbugal mu metti kon julit bi dafa war a xam lan mooy taxawaayam fan la ko lan la ko lislaamam jaral mu xool feet yi nga xam ne jullit ñaa ngi koy def sax am na ci feet yoo xam ne lislaam dafa ay jullit bi mu ciy xuus am na xeet yoo xam ne feet yoo xam ne yu bari la yoo xam ne jullit ñaa ngi koy def seen biir mu nekk feet yoo xam ne ñoom ñoo ko fental seen bopp ñu di ko tudde ay feet yoo xam ne ñu koy tudde ay bidaa lislaam ay jullit bi nga xam ne bëgg naa tënk ci njàngalem yonante bi sallallahu alayhi wa te foog naa jullit bu nekk loolu la bëgg lislaam aaye ko mu jëfandikoo feet yooyu rawatina nag feet boo xam ne tam ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne ñoom ñoo ko moom ñooñu sax far nekkuñu li nga xam ne mooy ñooy ay jullit loolu lépp ngir borom bi subhanahu wa taala di wattandikuloo jullit ñi ngir seen diine fi mu war a àgg ci ñoom bu àggee foo ci ñoom rek lu bare bare dañ koy moytu waaye daf leen di jaral ñu topp ànd ak di gëstu ndax mbir loo ko bëgg bëgg bëgg boo ko gëstuwul rek man nga jafe noo xam ne dangay jàpp ne yow yaa ngi ci lu baax sax te fekk nekkoo ci lu baax li ko waral mooy sa ñàkk gëstu ci mbir moomu moo tax képp koo xam ne bëgg na mbir rek mbir moomu daf laa war a jaral ndax gis nañ ne ñun ñi nga xam ne ñooy jullit ñi euh, al wala wal bara bi nga xam ne dañ koy def ci yéefar yi masalaan bëgg koo xam ne waroo ko bëgg walla bañ koo xam ne danga ko war a bëgg loolu def ñu yóbbu ci si bu ñu xoolee tey jii Euh, football bi nga xam ne mooy am ci àdduna bi buñ nee équipe sàngam ma ngay football Barça ma ngay football wala Real wala euh, Liverpool wala beneen équipe am na fa ay footballeur yoo xam ne ña nga ca équipe yooyu ñoo xam ne ay noonu yàlla lañu nekk noonu lislaam man mi nga xam ne maay jullit maa ngi toog sama néeg di leen seetaan bëgg leen lool bëgg leen lool ci kaw bëgg gi ma leen bëgg sax li ñu wax alwala wal bara damay am ci biir ñoo xam ne ay jullit lañu nekk nañ ci yeneen équipe yoo xam ne mën naa nekk ñoom ay jullit lañu waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ay yéefar nekk ci yeneen équipe yi nga xam ne ñoom laa faral ñoo ay gënal jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci équipe ya ci des ah ma ne day Messi de mooma yàlla na ko yàlla gindi te yàlla may ñu sabaat mooma gënal ki nga xam ne de mooy euh, mooy Salah mi nga xam ne moom ma nga ci beneen équipe ba ndax lan man maa ngi faral équipe bi nga xam ne ci la Messi football te équipe boobu day jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi fay football rek yaa ngi ma maa la yaa ma gënal ki nga xam ne moom moo nekk fële doonte kooku sax ab jullit la loolu moom tudde alwala wal bara alwala wal bara dafa dugg nit ñi dañ koy jëfandikoo léegi bu baax a baax a baax doomu jullit ñi ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax a baax ci wàllu forme yi nga xam ne mooy am ci àdduna bi football yeeg yu mel noonu te duñ ci bàyyi xel maanaam daga lépp aay bi daf ko wundiwaale daganul ci jullit moom muy sopp koo xam ne du jullit cofeel koo xam ne moom moo ëpp ni nga xam ne noonu la soppee ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ab jullit ki gëmul yàlla moom bu fekkee am nga cofeel ci moom benn cofeel la war a doon mooy gan mooy cofeelu yàllaa ko bind yaa ngi koy ñaanal yàlla gindi ko génne ko ci lëndëm googu mu nekk yóbbu ko ci leer loolu de yërmande rek nga ko ëmbal bu booba ndax yonante bi alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko daf ko yónni ngir yërmande ñëpp bu weesoo loolu nag nga sopp ko moom amul lenn loo xam ne war na tax yow nga bëggu ko ndax benn sa yonante sallallahu alayhi wasallam moom bëgg ko bëggul li nga xam ne mooy sa boroom bëggul sa téere bi bëggul sa diina ji kon kook ci dëgg dëgg dëgg amoo droit bëgg ko moo tax borom bi ne laa yattaxidil muminuuna alkafirina awliyaa min duni almuminin wa beneen bu ne yaa ayuha tax borom bi subhanahu wa taala wax ci beneen aaya ne qul ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون borom bi subhanahu wa taala jëme xitaab boobu ci yahudi ak nasaraan yi ويحق ينتم عليه الصلاة والسلام نوخلق يهود يك نصراني نلن يا أهل الكتاب ين ننتر تعالوا كايلن إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تبات بوخم ننجونا جينا تيم تموي الله نعبد إلا الله موين نبني جامو كن كدول يالا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله من بنيان نتي نجاب كنيا كدس أي الله نبايكي نحن موي يالا سنبرم سبحانه وتعالى Eh, aaya boobu ibnu Juray dane yaani yutiu baaduna baadan fi la bu ñenn ci ñun topp ñe ci des ci li nga xam ne mooy mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala boo leen waxee loolu bu ñu ñu lànk léegi nag fa in tawala fa qulu ashhadu bu boobaa yéen na ngeen seede yen julit ñi ne bi anna muslimun ñu dey ay jullit lañu way wamatu lañu topp ki nga xam ne mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon loolu moo war a nekk taxawaayu jullit julit taxawaayam mooy lan mooy déglu yàlla waaye di déglu yonantam bi sallallahu alayhi wa ndax borom bi ne ne wa ma ataakum rasulu fa xuduh gis nga ko ne lépp loo xam ne yonante bi alayhi salatu wasalaam indil na leen ko nangeen ko téye wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lum leen aayatam na ngeen ko moytu na ngeen ko bàyyi léegi nag ñu xool yonante bi alayhi salatu wasalaam ndax digal nañu ñuy feetu feet yi nga xam ne mooy feet yi nga xam ne mooy feetu ñi dul jullit wala déet tontu li mooy déedéet Euh, moo tax mu wax ci benn xadis mi ne yéen da ngeen topp yoonu ñi nga xam ne ñoo nekkul ay jullit sibran bi sibrin xatta law daxalu juhra dabbin la tabatumuhum da ngeen topp ñi nga xam ne mooy sunan alladina min qablikum yoonu ñi leen jiitu muy yahud yeeg nasaraan yi da ngeen topp seenu yoon jéego ci kaw jéego sibre ci kaw sibre maanaam xasab ci kaw xasab lu tuuti rek du dox seen diggante ak ñoom maanaam amul lenn loo xam ne da dox seen diggante ak ñi nga xam ne ñooy yahud yi ak nasaraan yi jéego ci kaw jéego fu ñu jaar ngeen topp ja ba buñ duggoon ci paxu mbëtt sax yéen ngeen topp ja saxaaba yi ne ko al yahudu wa nasara ñu ni ko ndax ñooñu ngay wax danañ leen topp ba bu ñu duggoon ci paxu mbëtt sax ñu topp ca ndax yahud yi ak nasaraan yi nga ci jublu juif yi ak chrétiens yi ak ak nasaraan yi nga ci jublu yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne leen faman su ma waxul ñooñu ñan laay wax kon loolu moo wone ne jullit bi ala kulli xaalin li ko war mooy déglu li nga xam ne mooy njàngale yonente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ma baamuwaat ko ndegem li nga xam ne mm, feet la goo xam ne dañ koy def ci biir diine lislaam te yenn feet yi nga xam ne dañ leen a tudde bidaa lislaam gërëmu ko yàlla gërëmu ko yonente bi sallallahu alayhi gërëmu ko mba mu jaral ko mu ne ci xadisu nday xaayisa bu ñëw ci saxiixul buxaari yi mu ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad képp koo xam ne sos na ci diine ji lu ci bokkul yàlla du ko nangu def ko koy delloo kon famin baabi awla wa ahra feet yoo xam ne ñi nga xam ne moom nangu ñoo wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ñoo koy amal lu mel ne feet yi nga xam ne moom la ñu dox ay feetu noël ak ay yi nga xam ne dañ koy def ci 31 décembre bi loolu la chaque daganul ci benn jullit mu koy ànd ak ñoom mu koy ànd ak ñoom bal li war a nekk taxawaayu jullit bi ci feet yu mel noonu kay mooy daal di taxaw déglu ki nga xam ne mooy yàlla akub yonantam waaye daal di jëfandikoo li nga xam ne moom la ko yàlla wax moom la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax te bañ a topp ñi nga xam ne ñoo weddi li nga xam ne mooy yàlla di ki nga xam ne mooy yàlla weddi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne jullit ñi weer bi ñu nekk nii Noël yi ñu ngi koy préparé bu baax di préparer li nga xam ne mooy 31 décembre nga xam ne Noël yi ni ñu koy préparer bari am na jullit ñoo xam ne ni ñu koy préparer sax jàpp naa ne nasaraan yi lottu nañ ngir préparer ko ni waaj nañ waajal seeni njaboot waaj nañ waajal seeni njaboot mu jaaj ñu jàppe ko feet gu rëy jàppe ko feet goo xam ne bal yow boo ñëwoon di leen ko leeral sax ka xawtut ñu jàppe la sa ab noon loolu li ko waral mooy ñàkk diglu njàngale yàlla waaye ñàkk diglu njàngale yonante bi salallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi ne ya ayuha alladina amanu la awliya awliya bad تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من أين ينغا خمنا gëm bu بولن جابو yahood yeeg nasaraan yi ay xarit bu leen leen jàppe ñi nga xam ne ñooy méngoo seeni mbir bal ñoom ñenn ci ñoom ñoo méngoo ña ca des waaye képp koo xam ne ci yéen de yéen jullit ñi méngoo na mbiru yahood yi wala nasaraan yi na jàpp moom moom mi ngi bokk ci ñoom képp koo xam ne jël na mbiram di ko jéem a dëppaleeg mbiru yi na nasaraan yi ak yahood yi di leen lo roy ci wax ak ci jëf ak comportement nga jàpp ne moom mi ngi bokk ci ñoom moo tax yonante bi wax ci xadis bi ñu jàngoon léegi man tashabbaha bi qawmin fa fa huwa minhum te koo ki nga xam ne mooy nuru nuru ñi nga xam ne ñooy yahudi wala nasaraan yi di leen topp ci seen feet yi di leen topp ci seen wax ci seen jëf ci seen comportement ci seen colin ci seen toogin ci seen doxin ñooñu day nañ jàpp ne fa innahu minhum moo kooku mi ngi bokk ci yahudi wala nasaraan inna allah la yahdi alqawma alzalimin kooku tooñkat bu màgg màgg la boo xam ne bokk na ci tooñkat yi nga xam ne yàlla nee na du gindi ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi euh, aaya bi mu fassiroo ne dañu wuute ci ban sabab la wàcce sababu nuzul bi waaye bokk na ci wax ji nga xam ne mooy wax ji ci gën a siw te Ikrama wax ko mu ni mi ngi wàcc ci Abu Lubaaba ibnu Abdil Munzir nga xamee ne yonante bi alayhi salaatu salaam yebal na ko ci banu Qurayza banu Qurayza mooy yahood yi nga xam ne dañoo bokkoon ci yahood yu dëkkoon Madina xam nga Madina ñetti façon ñetti giiru yahood ñoo fa dëkkoon muy banu Qaynuqa ak banu Qurayzata ak banu Nadir banu Qurayzata nag ñoom ñoo njëkkoon a wor ci ahzab ahzab mooy bi nga xamee ni waa waa dajale nañ mboolem yéefar yi nekkoon ci tund boobu ñu daal def benn coalition ngir dem Madina dali ci kaw yonante bi ak saxaaba yi ñu rey leen lislaam jeex benn yoon léegi euh, jamono jooja euh, xare boobu moom lañ tudde xare ahzab léegi biir Madina dafa am yahud ya fa nekkoon dañoo fasante woon yonante bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ki nga xam ne mooy banu Quraysata banu Quraysata nag bi mbir mi taree ba tar ñoom dañoo war yonante bi wor lislaam ñu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh léegi ginnaaw bi xare boobu jàllee ginaaw bu xare boobu jàllee yàlla yebal xëy na taxuñoo jóg yebal ngelaw lu sedd te bari ci xayma yi Quraysin buddi xayma yi ak ñu tas mu tas seen mbooloo mi ñu delluwaat Makka ña ca def delluwaat seen dëkk ànd ak perte ci la bi sallallahu alayhi wasallam takk xare ñu jublu fi nga xam ne mooy banu Qurayza ci la waxoon ni képp koo xam ne gëm na yàlla gëm yonante bi bu mu julee tàkkusaan lu dul ci banu Qurayza baraw qore qoresata mii nag sahaba bi nga xam ne moom la yonante bi yebaloon ci ñoom muy abu lubaaba ibnu abdil munzir bi mu demee banu quresat dañ koo laaj ci mbiru yonante bi ndax lan lay def ak ñoom banu eh, abdullah sahabi bi daal di jël loxoom joxoñ ko ci baat bi wane le def leen di rendi léegi nag loolu wax gi mu wax li nga xam ne moom la yonante bi sallallahu lenn ci li nga xam ne moo nekk ca lislaam loo xam ne moom secret la boo xam ne waruñ ko woon a génnee léegi yàlla wàcce aay bi yaa ayuha alladina amanu la tattaxidu alyahuda wa nasara awliyaa baaduhum awliyaa baad yéen ñi nga xam ne yéen a gëm bu leen jàpp nasaraan yi ay xarit ak yahud yi ñenn ci ñoom ñooy xarit yi ña des loolu mooy benn wax ji doonte am nañ ci yeneen wax yoo xam ne wax nañ ne mooy sababu nuzul bi ala kulli xaal ab jullit dafa war a xool bu baax a baax a baax jéem a xool xam ne àdduna bi du kër jaaruwaay la rek ndegam du kër jaaruwaay la nag laa koy tax a jëriñu fii ci àdduna waaye jëriñu ko fële nga xam ne mooy dund gu guy sax ba abadan te du jeex mooy jéem a tënku ci njàngale yàlla njàngale yonante bi sallallahu alayhi wa sallam feet yi nga xam ne ñu ngi koy def ci at mi jullit bi war koo def lislaam leeral na ko tabaski ak li nga xam ne mooy euh, korite ak feet bi nga xam ne mooy yowmal juma kon feet yooyu lislaam daf koo leeralal ki nga xam ne mooy jullit bi mu war ci yem amaa nag feet yi nga xam ne dañ ko sos ci biir lislaam sax te bokk ca jullit bi daf cee war a dañ ba set wicc rawatina nag feet yi nga xam ne nasaraan yaa ngi koy def yeneen xeet yi nga xam ne duñu jullit di ko def feet yooyu jullit bi daf cee war a maandu xam ne moom bokku ca bu mu ko yëgal sax ab yaram am aw yaramam bu mu yëgal yaramam ne am na feet ko xew bu mu yëgal yaramam ne ah noyel day agsi na na soppi cinam togg loo xam ne daaw ko togg 31 décembre jot na xale yaa ngi cotisé ñii joxe nañ nangam mag ñi sax bari na ñoo xam ne dañuy cotiser kër yi kër gu nekk wala koñ bu nekk cotiser ñu daj ci benn kër di feetu ne dañuy feet li nga xam ne mooy 31 décembre loola mbir la moo xam ne lislaam xamu ko mbir la moo xam ne dañ koo jegaani jëlewuñ ko ci diine lislaam yàlla gërëmu ko yonante bi sallallahu alayhi gërëmu ko kenn koo xam ne ku bëgg lu baax nga bëgg a tënku ci njàngale yonante bi sallallahu alayhi doo ko gërëm yàlla nañ yàlla may ñu sax ci alquran ak sunna musalan ci lépp loo xam ne dafa juyoo ak loola ñu ngi jégalu bu baax a baax ci guddal gi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waaleykum asalaam wa rahmatullah wa barakaatu suñ mbàkke macha allah question bi am na solo ndax borom bi subhanahu wa taala dafa aaye jullit ñi ñuy feetu ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoo dul jullit seeni feet ndax jullit bi ko feetu loolu dana koy ida yàq lislaamam wala déet awalan li ñu wax iqamatul xujja maanaam balañoo ñoo saxal aw ci kaw nit kooku dafay laaj ay mbir benn dafay laaj ndax loolu pour mu yàq lislaamam comme aay bi nga xam ne moom nga indi muy eh, yeefar yi ñoo nga xam ne dañuy jàpp ne yàlla sun borom subhanahu wa taala am na doom برام بناين لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا mu ni asamaani juróom-yaar ak suufi juróom yépp tuuti mu xar daggatoo jaxasoo lépp nekk benn nekk pënd ngir kàddu gi nga xam ne yéefar yi wax nañ ko ne yàlla dafa am doom e, montagne yépp mabbu jaxasoo taxirul jibaalu hadda an daaw li rahmaani walada mu ni yellul ci yàlla mukk muy am doom waaye li am mooy mboolem ñi nekk ci asamaani juróom-yaar ak suufi juróom-yaar ñii ay malaak ñii ay nit ñii ay jinne ñëpp jaami yàlla lañu te kenn ku nekk ëllëg yowmal qiyaam da nga ñëw ci kanamu yàlla yow kenn yàlla di la posé question ngay tontu te yàlla jaam ñooy ni ñu bari bari laqad ahsaahum wa addahum adda yàlla xam na ni seen lim toll amul lenn lu ko ci rëcc kon kooku moom la shakka ne yellut ñu koy jàppee ñu koy jàppal lu mel nii dafa am doom léegi nag ki nga xam ne moom mooy koy feetu ndax mu day bokk ci àtteem ne dafay génn ci lislaam aslan loolu faw ñu defal ko li ñuy wax iqamatul xujja iqamatul xujja mooy nit ki def na loo xam ne dafay génnee ni ci lislaam loolu bokkul ak ci boppam maanaam jëfi kéefar ak jëmmi nit ki dafa nekk eh, yéefar bokkul nit ki mën na jëf-jëf joo xam ne ala kulli xaalin dafay jëfi yéefar la waaye moom taxul mu nekk ab yéefar bala moo nekk ab yéefar rek dañ ne ko ah yow di jëf ji nga jëf ni xanaa xamoo ne jëf la joo xam ne du jëfi jullit maanaam dafay génne ne ci lislaam léegi ñu laaj ko ndax xamoon na ko wala deet boo dee xamoo ko woon ñeen ñu door koo leeral nag moom buñ ko leeralee beneen yoon mu dellu ci te amul yeneen yi nga xam ne moom moo ko motivé ba mu dugg ci forcé wuñ ko bu fekkee dañ koo forcé du tax mu nekk li nga xam ne mooy ab jullit gis nga man kafara billah amar ibnu yasir bi ko maanaam bu ko buñ ko forcé du tax mu nekk ab yéefar la bëgg a wax ndax amaar ibnu yasir bu ko yéefar yi forcé ba mu wax li ko génne ci lislaam mu ñëw tiit ñëw ci yonante bi alquran dafa wàcce ne ko nekkul ab yéefar ndax li nga xam ne moom moom la wax jëfi wax yéefar la waaye nekkul loo xam ne daf ko wax ci xolam làmmiñ wi rek la yem te dañ koo forcé kon ànd naag yéefar yi maanaam nekk ci àndin boo xam ne ci seen feet yu mel nii nga xam ne dañuy feetu ànd ak ñoom ci jàpp gi ñu wax jàpp ne yàlla dafa am doom subhaan loolu werante woon ne jëf yéefar la wax yéefar la tam kon ki feetu ak moom bala ñoo defal ci moom def ci moom iqaamatul hujja mooy dañuy jàpp ne benn xam na ba pare teg ko fele sànni xam-xamam bale teg ko fele te force wuñ ko te amul lenn loo xam ne moo ko motiver loo xam ne lu mënta ñàkk la moom moo tànnu tànnu boppam bu boobaa nag lay wi day dal ci kawam te bu boobaa sax ala kulli xaalin yow jullit bi nekkul ne yow yaa koy takfiir waaye bu boobaa ñëwoon ah, bu boobaa dafay taxaw ci kanamu comme bu fekkoon réew muy àtte jullit àtte lislaam wax ma suñ réew mi nga xam ne laïcité la ñuy dox waaye bu dee réew muy àtte lislaam noonu nii la war a demee noonu nii la war a demee kon dafa am yi nga xam ne mooy mawaani u takfir bu demee ci téere yi nga xam ne ñooy jàngale tawhid lu mel ni al aqida al wasitiya wala atahawiya wala yeneen téere yooyu dañ koy leeral bu baax a baax a baax wallahu taala alam ci laaj boobu euh, deuxième laaj bi mooy ki nga xam ne moom daf koy feetu waaye moom daal jàpp na ne moom bu ko feetuwul këram njabootam dañuy génn feetoo ko feneen ba tax ne moom daf koy feetu waaw loolu aw lay la rek lay la rek mi ngi mel ne ci misaal mu jege rek ki nga xam ne gis na njabootam di xeex maanaam xale yaa ngi xeex ci mbedd mi mu daal di tëj njabootam ci biir kër gi ne moom léegi xeex ne leen xeex leen ci biir ci biir kër gi ndax boo leen génnee dangeen ngeen xëy ci biti kon nañu xëy ci kër gi est-ce noonu lay def kon bu dee moom bu njaboot ga génnee dañuy feetu ji euh, Noël ci biti ba tax mu tëj leen ci kër gi ne feetu leen noyal day mel ne rek bu njaboot gi génnoon ci biti dañuy xeex léegi kon naa leen tëj ci kër gi ne leen bisimilah man ngeen a xeex kon mbir maa ngi noonu loolu loolu lay la rek waaye loolu la sàkk ne loolu nekkul lay woo xam ne wul islaam euh, nekkul ngànt ci ne nit nit ki dafa war a feetu li nga xam ne mooy euh, feetu yéefar yi bal li ko war kay mooy mu yar ak njabootam ba gëmloo leen li nga xam ne mooy li war mu xool nag geneen anam gi nga xam ne moom lay naxante ak njabootam ndax wa waxtu wu nekk mën na mën na mën na noos ci këram <laughs> waxtu wu nekk dagan na moom mu berndeel njobootam lan moo tax nag mu koy fixé ci 31 décembre ne damay bañ ñu génni loolu moom la shakka ne wax la joo xam ne amul ca salay waaw ba léegi siñ Mbàkke macha allah troisième question bi xam na solo ki nga xam ne moom daf koy feetu waaye ci ne daf koy feetoo ci geneen anam ne comme nasaraan yi dañ koy feetu ci ay xeeti mooy yàlla yu mel noonu moom na ko feetu wala yeneen jullit sax dañuy ànd ak nasaraan di ko feetu ci yeneen mooy yàlla ak wala ndoonte sax dañuy berndeel seen njaboot ci seen kër loo xam ne mooy yàlla an mu ci moom mu ni nag moom na ko feetoo ci geneen anam ci ne dafay sant siñ siñ diw masalan euh, ma nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci group bi nga dugal leen eh, barki démb yàlla yàlla fay la yow sëñ Mbàkke ku mel ni Thierno Younus sëñ Dame Ndione eh, sëñ Gànna njoon waaye sëñ Mor Seck ma di leen nuyu bu baax a baax di leen dalal masalan ñu ne eh, sant sëñ Moussa Diop waaw moom daal sëñ Dame Faye moom dajale na mbooloo fële ne day sant sëñ Moussa Diop ci 31 décembre bi waaw kooku noonu li mu def sax moo moo yées li ñële def ndax moom lii nii dafa jël xéewal yi boroom bi subhanahu wa di ko jagleel keneen afa bi nicmatillahi yunkirun mu ni ndax xéewal yàlla yi la ñuy wedd di ko askanele keneen noyyi gi nga xam ne moom la ko yàlla jox muy noyyi ci jaww ji xéewal googu rek bu malaaka ñëwoon ne ko fii nga toog ngay sant diw sëñ mu Diop mi ngay sant nii malaaka ma wàcc asamaan ne ko léegi facture noyyi gi laa bëgg nga fay ko lu muy wax ndax bu boobaa dana ko man tontu li mooy déedéet kon kooku ci gàttal ngir ojo bi ba ñu gudd lool la muy def moo yées sax li ñële di def nga xam ne dañuy feetu rek du nuru nuru ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ak di leen soutenir ci la ñuy def kii la muy def ko yées ndax kii nii la muy def moom def cee jublu jaamu goo xam ne mu ngi ci biir diine lislaam maanaam jaamu yàlla la ci jublu goo xam ne mu ngi ci biir diine lislaam kon boobu booy xool dafay boole ñaar dafay boole bokkaale ak bidaa bokkaale bi mooy xéewal yàlla yi nga xam ne mi ngi koy askanale keneen biddaa bi mooy loolu mu jàppe ak jaamu yàlla ci biir diine lislaam te du jaamu yàlla ndax man ahdasa fi amrina hada ma laysa fa huwa ci hadisu nday Aïsa bu ñëw ci sahihul Buxaari ak Muslim waaye ci beneen riwaaya man amila amalan laysa alayhi amruna fi fa huwa rad ci sahihu Muslim barakallahu fikum waaw bu dee lu aju ci yi nga xam ne moom danañ koy xeewloo ci bis ba ñoom nasaraan yi eh, di ci eh, eh, defal julit ñi loo xam ne dañ leen ko yónnee ñoom ñu di ko xeewloo ba tax yenn jullit yi nga xam ne ñoom la xewal yooyu di yegsi ci ñoom dañuy bëgg di ko yàkkamti di ko yàkkamti loola nekkul lu yell nekkul lu jaadu am borom bi nee na wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum euh, ñi nga xam ne ñoom lañuy jox téere muy al yahud ak nasaraan seen ñam dagan na ci yéen yéen tam seeni ñam dagan na ci ñoom waaye di bëgg ci mbir ma ba di ko yàkkamti bal mën na am sax nga gan leen ko yàkkamti loolu dafay duggaat ci li nga xam ne moom lañ tuddee alwala u walbara te alwala u walbara buntu boobu dafa nekk bunt bu yaatu boo xam ne bépp jullit war nga cee fer ijji wala walbara lu dangereux la loo xam ne jullit bu ci ferul ijji rek te leeraluñ la ko mën nga dund ci danger boo xam ne yàlla nañ ci yàlla musal alwala u mooy jullit bi buy bëgg dafa war a bëgg ngir yàlla buy bañ dafa war a bañ ngir yàlla kan la war a bëgg mooy dafa war a bëgg yàlla méngoo ak yàlla bëgg yonante bi méngoo ak moom boolem ñi gëm ñi mu bëgg leen ngir yàlla di dimbalante ak ñoom loolu mooy alwala léegi albara mooy dafa war a deñ ci képp koo xam ne bañ na yàlla bañ yonante bi bañ jullit ñi moom it daf ko war a bañ deñ ci moom génn ci ay mbiram buy jëflanteeg moom tam ci kaw àdduna nii rek dafay jëflanteeg moom ci kaw masla waaye xolam àndu ca xolam àndu ca maanaam xolam àndu ci maanaam mi mooy lii muy jëflanteek moom dafay jëflanteek moom ngir nekkul intérêt personnel moom waaye intérêt l'islam la ngir xëy na dafay rafetal jëme ci nasaraan bi ngir lan xëy na moom mën naa xemmem gis jëf li jëflante bu rafet bi muy jëflanteek moom tax mu xemmem l'islam mu jëflanteek moom noonu waye du jëflanté ak mom ngir ne mom daf ko bëgg mom comme ni nga xamné non la wara bëgg ki nga xamné moy abdulit ndax al wala wal bara ay ay ay al qur'an bari na ci comme ay biñ tudon légui mom lañu ubbe won waxtan wi la laa mu'minuna al kafirina awliyaa min duni mu'minin wa hakaza ila ayatin ukhra barakallahu fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu salaam wa rahmatullah sëñ Mbàkke laaj bu ci mujj ñaari question yi ci mujj mooy ndax jullit bi maanaam làmp yi ñuy làmp yi ci bëccëg gi te yéefar yi di ko def jullit yi di leen roy te loolu yàq la ndax borom bi dane wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin ne rek waaye yéen ñi gëm ñi bu leen yàq ndax yàlla bëggul yàqkat yi kon loolu doy na sëkk ne yàq moom lislaam bëggu ko benn yoon beneen ba mooy nuru nuru lu ñi nga xam ne ñoo nekkul ay jullit lislaam daf ko aaye yonante bi sallallahu alayhi wa sallam aaye ko man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma alzalimin bu dee li aju ci